سنتي الله سبحانه تبارك وتعالى ديكو باك في تورم يسلي اك ملو كارم يدي دي دنك سن بوب دي لن دنك رجل يلا سبحانه وتعالى اك توبكو واتو اي تريم تيت كو بنكو موي di jege jegelu ci yàlla ci lépp loo xam ni amal nañu njëriñ ci sunu àdduna ak sunu alaaxira di wattu tey bàyyi xel bis booba nga xam ni dana ñu jébbal sunu borom ndax ku nekk bu sa faatu dikkee rekk jébbal nañ la sa borom mu wuteeg nag bis boobu nga xam ne ñu ñëpp dañ ñuy dekkal ñu jàkkaarloog yàlla suñu borom tabaraka wa taala bu ko defee bakkan bu nekk ñu fay ko lam jëfoon te yàlla sama borom du tooñ kenn yàlla du tooñ kenn ci ay jaamam yàlla wax ni yéen way gëm yi ragal leen yàlla te na kenn ku ne ci yéen xool lan la jiital ngir ëllëg ëllëg mooy allaaxira da ngeen ragal yàlla te xam ni yàlla dañ na kumpa ci li ngeen di def li ngeen di def lépp moom yàlla xam na ko bu leen mel ni ñi nga xam ne dañoo fàtte yàlla bañ fàttee yàlla yàlla fàtteloo leen seen bopp mu ni ñooñu ñooy kàccoor yi ñooñ sawara ak ñooñ aljana duñ yem yemuñ ci àdduna yemuñ àllaaxira waaye ñooñ aljana yi ñooñu ñoo tuuf ñooñu ñoo texe ci àdduna ak àllaaxira mbokk yi ci lislaam gëm yàlla du ay mébét rekk gëm yàlla du ay takkaay looy feeñal ci biti walla looy téye ci sa loxo wala mbubb mooy sol wala kaala gooy def goo xam ni ku la gis jàpp ni yow da gëm yàlla du loolu waaye gëm yàlla luy sax ci xol la sax ci saxin wu xóot waaye ay cër di ko dëggal ci topp yàlla suñ borom ak moytu di ko moy gëm yàlla du lu ñuy woote rek di ci ngistal du mbubb di sol waaye ngëm yàlla pas-pas la buy ne ci xol am ay jeexitam ci wax ju jub ak jëf yu baax te rafet gëm yàlla day jur ci nit mu bëgg yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñu gënal ko ku dul ñoom gëm yàlla day jur ci xolub jullit sellal ci ay waxam ak i jëfam mbokk bu ñu xamee lii lépp te mu wóor ñu nga xam ni sikkuñu ci déngi déngi wuñ ci danañ xam bu baax solos li nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaane léegi ci sunu ba tey bii muy wu am solo ci wàllu ngëm goo xam ne day feeñ ci ay jëf di melokaan bu rëy ci melokaan woy gëm yi wàllu woowu melokaan woowu mooy di def sa alal ci yoonu yàlla di joxe ngir yàlla loolu nga xam ni kenn mënu ko ku dul ñu ragal yàlla kenn du ci am tawfiq ku ku yàlla sama borom namm ci moom ne dana texe dana tuuf ñañ koy xañ moo ñu texee di ñi ñooñu nga xam dañ leen a gecceel ñooñu nga xam ni dañoo nar te am ndam moom la yàlla wax ni alif laam téere bi di alquran de new ci ne moom njub la ñeel way gëm yi ñooñu nga xam dañoo gëm kumpa di taxawal julli waaye di joxe ci liñ leen jox ñun yàlla wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun yàlla dellu wax ni way gëm yi dëgg ñii rekk ñooy ñi gëm ñoom ñooy ñi nga xam ni fuñ tuddee yàlla seen xol ya jàq buñ leen jàngalee alquran mu dolli leen ngëm foo leen fekk ci yàlla sama borom dañuy wéeru mooy ñi taxawal julli mooy ñi nga xam ni liñ leen wërsëgal ñu yàlla dañ ciy joxe yàlla mu ne boo bëggee xam aji gëm ñii ñooy aji gëm dëgg-dëgg ulaayka humul muminuuna xaqa seeni daraja ma nga fa yàlla di kawe lool ñu am fa njëggal waaye am fa wërsëg woo xam ni wërsëg wu tedd la yàlla dellu wax ni képp koo xam ni fegalees na la sa nayug bakkan kooka mooy ku texe koo xam ni yàlla sama borom musal na ko ci nay muy joxe ci yoonu yàlla di def lu baax yàlla mu ni kooku mooy ku texe yéen mbokk jullit ñi yàlla suñ boroom daf ñoo jox wërsëg defal ñu ay xewal dénk ñu alal ngir loola nekk fitna ak nattu ci ñu bari ci ñun ngir mu natt moom yàlla kan mooy sant yàlla ci li ko yàlla defal ak kan mooy weddi yàlla bañ koo sant ci xewal gi mu ko jox yàlla wax ni ku sant yàlla sa bopp nga santal wa man shakara fa innama li nafsihi ku sant yàlla boppam la santal waaye wa man kafara fa rabbi ganiyun karim waaye ku weddi santo yàlla xamal ni sama borom moom ku woomal la lam lay laaj soxlawu ko waaye ku ku tedd la yàlla dellu wax ni fàttalil ba sa borom dogale ne bu ngeen sante ma dolli leen waaye bu ngeen weddee sama mbugal man yàlla lu tar la yàlla dellu wax ni seen alal yi ak njaboot gi ma leen dénk fitna la sama borom am pay gu mag kon nag ragal leen yàlla ci alal ragal leen yàlla ci njaboot gi ragal yàlla ci alal gi di ko wuutee fañ ko wara a wuutee waaye ko def fañ ko wara def ragal yàlla ci njaboot gi jur leen ci yoon yar leen ci diine ñaanal leen yàlla sama borom ñu màgg doon julit ñu baax kon ragal leen yàlla seen kémtal ay kattan te ngeen déglu xelam ak mbaax ngir topp ko topp ndigalal yàlla ko yonentam ngeen dépenser ci alal ji ma leen jox loola moo gën ci yéen wax ni ku yàlla fegal ak nayam kooka mooy ki texe mbokk yi alalu doomu adama lam ca moom dëgg-dëgg mooy lam jiital du lim dajale def ko ci ay compte ngir ne da koo bëgg a bàyyil njabootam sécuriser seen avenir du loolu njaboot gi liy sécuriser seen avenir mooy nga yar leen fa leen war a yare jur leen fa leen war a jure moo jiitu yar leen fa leen war a yare ak ni leen war a yare jàngal leen yee leen def ci ñoom job loolu mooy tax boo fi bàyyee dara lu mën a toll yàlla mën na ko barkeel ci seen loxo waaye boo fi bàyyiwoon ak mag li ci biiram te defoo ci ñoom yar defoo ci ñoom diine boo fi jóge ñu ñu di ko jëfandikoo ngir lu yokk seeni i bàkkaar yokk seenu cànkute yàlla sama borom di la bindal bi ndax yàgg fi bay kon nit lim moom li mu jiital ci bàmmeelam nga xam ni buy dem fa yàlla sama borom dana fa fekk la mu jiital ci ay jëfam ndax loolu rek la fay fekk yàlla wax ni wa laqad ji'tumuuna furaada kama xalaqnaakum awwala marra wa taraktum ma xawwalnaakum waraa zuhurikum dikkee ngeen ma yoru leen dara di yéen cundum dara topp leen na ma leen bindee woon ca njëlbeen bi ngay juddu indi woo dara booy dee doo yóbbu dara kon lo fa fekk dang ko fa jital ngeen bàyyi lama len leen xewale woon man yàlla ngeen bàyyi ko ngeen bàyyi ko gannaaw abdullah ibn mas'ud netrina jere jere ci yonente salam wax ni ana kan ci yéen la alalu ndonom gënal alay bopam ana kan ci yéen la alalu ndonom gënal alay bopam saxaaba yi doon ne ko ah yonent bi amul kenn ci ñun lu dul sa alal yi bopp moo la gënal sa alal yi nono muy nag sa alal yi bopp mooy li nga jiital fa inna maalahu ma qaddama al sa alal yi bopp mooy la nga jiital la ca des alal yi nono yi la ñoom nga ko fi bàyyil waxuñ nag nit ki bu mu fàggul njabootam loo xam ni te ñàkk ci mbiri dund kër guñ dëkk bu baaxee lool baax na ci ñoom ndono la jumtuwaay yoo xam ni buñ bëggee liggéey danañ ci mën a tàmbali loola moom wàññiwul dara lislaam sax dafa aaye ki nga xam ni bi muy dund deful lu baax li mu mën lépp joxe dimbalee def nga xam ni boppam lay njëkk a xañ balaa muy xañ keneen ndax gem yàlla jiital ci bàmmeelam mu dem bay waaj a faatu ba mu wóor ko ni dee ci des mu bëgg a saax saaxee alal ji lislaam du ko nangu sañu ci lu dul bu ko xaaja ñett benn bi moom mën na cee def lu lim bëgg lépp waaye li ci des comme xës naa yegg si foofu moom lislaam nee ñaari ñaari ceer yi li muy wane mooy li nga mën a def ci lu baax lépp bi ngay dund wér nga ko mën waaye boo tëddee feebar feebar boo xam ne yaakaar nañ ni doo ci jóg mënoo def lu mel noonu su nee Aïcha radiallahu anha mu ni benn bis yonent alayhi lu gàtt bi mu reyloo gàtt ñu séddale gàtt bi yépp ba mu des mbagg yi su nee Aïcha mu bi joxe nañ gàtt bi yépp mbagg yi rek moo ci des yonent bi ne ko déedéet Gat bi yépp des na fi mbagg yi rek a dem mooy li nga xam ni joxe wuñ ko loolu la ñàkk waaye liñ joxe sama borom dencal nañu ko te loolu lañ moom yonent bi asaam dal wax ni doomu aadama foofu fekk danaan Mali, sama alal sama kër gi sama oto bi sama compte bancaire lu nekk mu di ko tudd jàpp ni moo ko moom yonent bi alei salaam sa alal de moo moo fi dul ñett yi ñett yi rek nga moom sa alal loo ci lekk bu rees yaa ko moom loo ci sol mu ràpp yaa ko moom loo ci saraxe mu jiitu ci sa bàmmeel yaa ko bu dul yi ñeneen nga ko fi ñeneen ñoo koy jël ci yow buñ ci defee lu baax ngir yar bu baax boo leen yar ah yàlla dina bindal tuyaaba ji yow mii indi jumtuwaayu lu baax waaye buñ ci nekkee ci safaan te fekk yaay sabab bi boo demee ci yàlla da nga wax ak moom lu tax yaroo sa njaboot ba noppi bàyyi leen jumtuwaay alal ñu di ci mooy yàlla suñu borom tabaraka taala mbokk ci lislaam doomu aadama yi bari dañoo tiit lool ci jamono jii ci ñàkk am lan moo jubluwaay dund nit ñi dañuy jaawale jumtuwaayu dund ak jubluwaayu dund ñaar yi bokkul li ñuy tuddee réseau de vivre ak moyen de vivre dañ koy jaawale jumtuwaayu dund mooy yi am ni ay lépp ay jumtuwaay la kër yeeg oto yeeg mbubb yéeg lépp ay jumtuwaayu dund la waaye jubluwaay dund nag mooy texe ci àdduna ak texe alaaxira tedd ci àdduna ak tedd alaaxira ñu bañ a jaawale tedd nga ak teraanga nit ki bu ko wut teraanga ne lay xañ tedd nga booba xàmmeetul diggante jubluwaay bi ak jumtuwaay bi jaawale googu nag moo indi nit ñi njëkkante am am te duñu bàyyi xel nañuy amee nu doon nit bàyyi na léppam yarul njabootam taxawu leen du gis ay du leen taxawu lan moo yitteem day wër di dajale alal day wër di dajale alal bu dajalee alal ji ba mu daje mu indi ko ci kër gi ñooña fekk fi alal jooja fekk fi njaboot gu yàqu nyonya yàq alal ji nga xam ne daanaka lam doon sonn di wuti mënoon na ko ca bañ a fekk ndax amalu ko njëriñ coono la ko jural ak naqar yow mi yàlla sama borom dénk alal dépenseel alal jooju ci lu baax dépenseel alal jooju ci garantir sa avenir yow sa avenir dëgg-dëgg mooy boo faatoo ba dekk ndax wa inna al axirata la hiyal xayawaan dund ba dëgg-dëgg mooy dund ba alaaxira sa avenir dëgg mooy yar sa njaboot ndax ci li lay dimbali alaaxira la bokk kon lépp loo xam ni danga la dimbali ci nga am texe alaaxira te mooy jiital fa lu baree bari ci dimbali jaami yàlla yi jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jiital fa lu baree bari ci bàyyi fi njaboot gu baax dana ñëw ci kanam loo mën ci def sa alal ci loolu loola moo gën ci yow yàlla sama borom wane ni xéewalam moom yàlla daf koo jaay way gëm yi inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yàlla dafa jënd ci jullit ñi way gëm yi dafa jënd ci ñoom seen bakkan ak seen alal ngir jox leen aljana loolu la nga ciy déggee mooy yoonu aljana du yoon wu yomb lu jafe nag la kilifa ga waxoon ku la ko bëgg a yombalal daf lu ko bëgg a xañ lu jafe ku la naan yomb na bëggul nga jot ci aljana bokk na ci la fay yóbbu nit di joxe ci alalam waaye pare ngir bakkanam des ci kon lu dul joxe bakkan moom taxul ñuy wax yàlla wax ni kan mooy lebal yàlla بر كي أنا مرافق من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة كان ما يلبل يلا بر كي أنا مرافق يلا سامورم فول الكوكو أي فول يو بري بري بري كن لولا دق دق موي كوميرس موي جند أجاي بوتوف يلا وخني lépp lu ngeen dépassé ci aw yiw seen bopp ngeen ko defal lu ngeen def ci lu baax ngir yàlla dépassé ko ci alal xam leen ni yàlla sama borom dana leen ko fay te moom yàlla du tooñ kenn yonent bi salaam wax ni képp ku saraxe lu toll ni tàndarma sax waaye nga saraxe ko ngir yàlla gannaaw bi nga ko fàggoo fàgg wu teey ndax yàlla kat du nangu lu dul lu teey mu ni yàlla daf koy jël nangu ko ci ndeyooram mu tedd wa di la ko yaral comme ni kenn ci yéen di yare ak mol fas wu ndaw mu fekk ko àllaaxira mu toll ni aw tund ci tuyaaba loolu li muy wane mooy yow ki def yow mi def lu baax bul wax ni bokk ma ci borom alal yi alal bari alal taxul a baax baax ci xol lay nekk tabe ci xol lay nekk nit am na lu dul jeex ci alal ngir bari waaye taxul mu mën a joxe ci yoonu yàlla fu mu joxee rek dañoo yëngal bakkanam dañ koo tagg mbaa ñu tuddee koo bis mbaa ñu loolay tax mu joxe waaye ngir yàlla dong mu wóor ko dafa not bakkanam li muy def yàlla rek a tax loola moom tawfiq la gu yàlla def ci xolub julit li ko koy may mooy mu yëg ni lii may jox jaamu yàlla bi li ma ci yàllay fayee moo ko ëpp bu jaroon ci moom mu saraxu nit ki ngir jox ko dana ko saraxu ngir jox ko ndax la mu yaakaar ci ngëneelal yàlla ak tawfiqam ak wërsëgam bu yaatu moo ëpp fuuf yii mu jël di ko jox di ko jox jaamu yàlla bi mbokk ci lislaam ni lislaam ñaaxee ci tabe ak di def sa alal ci yoonu yàlla noonu la tëkkoo ci nay yàlla saa borom wax ni haa antum haulaai tudaawna li tunfiqu fi sabilillah fa minkum man yabxal wa man yabxal fa innama yabxalu an nafsih wa man yabxal fa innama yabxalu an nafsih wallahu alganiyu wa antum alfuqara wa in tatawallaw yastabdil qawman gayrakum thumma la yakunu amthalakum mu ni ñu ngi leen di woo ngir ngeen joxe ci yoonu yàlla def leen seen alal ci lu baax am na ci yéen ñuy nay ne ñoom duñ joxe seen alal ci yoonu yàlla yàlla mu ni ku nay sa bopp nga xañ wa man yabxal fa innama yabxalu an nafsi ku nay sa bopp nga xañ sa bopp nga nay waaye yàlla moom woomal na yéen yéen ñu ñàkk bu ngeen dum mooyoo dimbali leen lislaam dimbali wu leen fi leen yàlla saa borom sàkku ci yéen ngeen dimbalee foofa yàlla jële leen fi indi fi ñeneen ñoo xam ni da leen jox alal ñu de ko def ci lislaam waaw réew mu nekk nag boo fa nekkee bu fa misaal mu baax amee dañ koy tudd ngir ñaax ci ña jàpp ne alal boo ko joxee mu jeex senegal yàgg na am ay borom alal yoo xam ne ràññeeku nañ ci lu nekk am ñu yor seen alal di ko def feneen di ko tabaxee ay jamono ji yàlla génne na kenn ci ñoom koo xam ni bi ko yàlla joxee alalam li xalaat mooy nu muy def ba alquran gën a yaatu ci senegal mu jël alalam ay centaine de million di ko def ci li ngeen gis ñu tuddee ko concours ci alquran mu kita harus sénégal ci àdduna yépp nit ñi di ko seetaan waaye mu def liggéey beneen bu am solo te mooy daara yi doon sàgganee sax njàngum alxuraan mu rafet ci barke concours boobu ñépp a ngi góorgóorlu ngir seen njàngi taalibe rafet kooku fu jullit toog da nga ko ñaanal yàlla suñu borom ndax ñun ñun alxuraan lañ am kuy taxaw alxuraan fu jullit nekk moo xam la moo xam xamu dana ñaan sa alal yàlla wattu la sàmm la ba say noon duñ mën a yegg ci yow waaw loolu ku ko am ndax tawfiq jooju kat tànn bu yàlla suñ borom la ku ko am yaakaar nañu yaakaar wu wér nga am texe àdduna am texe àllaaxira yàlla na yàlla sàmm ñooña sàmmal leen seeni yéene ak seeni pas-pas ak seeni jëf ba ñu fekk ko ci yàlla sama borom xam ne yàlla rek moo mën a fay. lii nag dama ko joxe muy misaal waaye Sénégal. bari na fi ñoo xam ni ñi ngi yëkkati alal ju bari di def ci diine di ko taxawoo lislaam di ko taxawoo daara di ko taxawoo njirim di ko taxawoo ay hôpitaux di ko taxawoo lépp lu ñu yaakaar ni lu baax la loolu nag nañ ci nañ ko yaatal te mu sax nañ ko yaatal te mu sax bu ci kenn xeeb sa bopp lii defar réew mi du luy jóge ci état budget bi ñuy dajale du dara xëy na buñ ko jaarale woon ci yoon sax mu mën dara waaye lii régler problème réew mi mooy solidarité kenn ku ne ci ñun yëg ni boo amee lu ëpp sa soxla tuuti rek nga yëg koo xam ni soxlaam fajuwut nga yéene koo dimbali ngir soxlaam faju loolu bu ko bu ci ñëpp maasee danañ dem ba yëg ni bu ñuy dimbalante yéenante jàmm yàlla sama borom moo ñu ëpp jàmm aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum wa saa'il mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين mbokk yi ngëneel yi joxe ci yoonu yàlla ak def lu baax ci sa alal ngëneelam foo ko natt weesu na ko yonente bi alei salaam wax na ni ma min yawmin يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا yonent من أن na amul بس بوي خي جامي jaam خي di ci دنا lu نياري ملاكه seen liggéey bis bu yépp mooy ñaan ku ci nekk ci ñoom benn ñaan ngay ñaan boo xëyee moom ngay ñaan di ko ñaan di ko ñaan di ko ñaan ba ëllëg fajar nga wàcc keneen ñëw di ñaan di ñaan ba àdduna tukki kenn ci ñoom ñaanam mooy allahumma aati munfiqan xalafa yàlla képp kuy joxe ci lu baax lu joxe rek na nga ko delloo lu ni mel mbaalu ko ëpp moom loolu lay ñaan xëy soo ngoon yàlla kuy joxe ci lu baax lu joxe rek na nga ko delloo lu mel mbaalu ko ëpp xam ngeen yàlla sa borom buy delloo day ful keneen ki day xëy di ñaan ba fajar keneen remplacé ko lu muy ñaan yàlla ku nay du joxe lu mu am yàlla na ko yàq allahuma aati mumsikan talafa yàlla ku nay du joxe du saraxe du dimbalee boppam rek la tal lu mu am na ko yàq nga xam ni kon joxe ngir yàlla nekk nit ku tabe yéen di wax ne dafay musal nit ci gàcce waaye daf lay indil ñaanu malaaka يا صبرم دا فا بند اي ديانا تدو عدل ديف تي مبول بي خيولم خوت تي اي دخم خول لول ياتو لول خيو لول مولي كو وخال الجنة دينة واي تخنا واي جمي ni fi nara dugg ëlëk texe nañ de yàlla ne ko ne du ma fi dëkkaale ak ku nay xadis boobu at-Tabarani génne na ko fil kabir wal awsat ci sanad boo xam ni wér na yàlla sama borom nee na du ma dëkkaale ku nay mooy ku nay du doon dëkkandoo yàlla suñu borom tabaraka wa taala Jarir ibn Abdullah al-Bajali nettali na jëlee ci yonente bi salaam wax ni ñett ñii yàlla bëgg na leen ñett ñii yàlla bañ na leen jullit war a xam ñan la yàlla bëgg ngeen mu mel ni ñoom waaye xam ñan la yàlla bañ mu moytu loolu mu ne ñu yàlla bëgg mooy nit koo xam ni dafa nekk ak aw gaay ak mbooloo benn waaye ñëw di sàkku ndimbal waaye moom kat du mbokk du am di jam dafa ñëw rek ab doxandeem la di sàkku ndimbal nit ña gàntal ko bañ koo dimbali waaja rocceeku dem wéet ak moom dimbali ko ci lu kenn yëgul yonte waa salaam mu ni kooku yàlla bëgg na ko ak nit koo xam dafa ànd ak mbooloo ñu tukki guddi dem ba metti lool ñu gëmmentu ba fa ñu noppaloo moom mu di julli di jàng alquran di sàkku ngërëmal yàlla suñu borom ak di ko ñaan kooka it mu ni yàlla sama borom bëgg na ku mel noonu ak nit koo xam dafa ànd ak mbooloo ñu ne ci fi sabilillahi dem ba mel ni noonu yàlla yi dañ leen a mën ñëpp dellu gannaaw moom mu dëgmal dellu gannaaw lu baax lu mu ànd ak nit ñi rek bu nit ñi dëppee moom mooy continuer ba am ca ndam mbaa bakkanam des ca kooku yàlla bëgg na ko mu ne ñan la yàlla bañ nag ñi yàlla bañ ka ca jiitu mooy mag mooy njaaloo xam nga njaaloo moom ci ñépp bakkaar la yàlla bu ne bu kenn jige njaaloo mooy góor ak jigéen wuy seq ci sëy loo xam ni jaarul ci yoon kenn fasul seen diggante kenn mayewu leen kilifa mayewul ku jigéen ki ku jigéen ki kilifaam mayu ko góor gi ñuy séq ci sëy loola mooy njaaloo dañ koy wax nag ndax Sénégal dafa xumb Sénégal dafa xumb te kàccoor yi dañoo identifier ay nit bi ñu leen identifier ñu xam ne ci ay kër yu mag lañ bokk nañ defoon démb ibbi woon école bu tudd école des fils de chef noonu lañ identifié waate ay nit yo xam ni xam nañ ni dañ leen rus ngir fañ bok ñu jël leen yàq seeni jikko yak seen pas-pas yabal leen ci biir jullit ñi ngeen ñu yàq seen diine weeru koor nag la ñuy bañ bu weeru koor tàmbalee jullit ñi jaamu yàlla guddi ñu war koo naafi la ñu nekk ak ñoom di wax ak ñoom lu bon rek ba fajar lu bon lu nekk ñuy baax na mbokk yi gis nga lu bon moom jarul la yu bari yàlla bindee nit damir damir boobu responsabilité am la dana ci xam lu baax dana ci xam lu bon lu baax dafa leer nañ lu bon dafa leer nañ ku la ne góor gu génn ci benn mi dajeeg jigéen ju ko neex sañ naa ànd ak moom ci lu ko neex yow boo ko bëggee gëmit da ngaa topp sa bakkan waaye yaa gën a xam ni du dëgg yaa ko gën a xam boo fi nekkee nan diwa ko wax ak di way bàyyam ak fii la jànge yi la jàng kenn jàngu fi lu kenn jàngul fi ci réew kenn jàngu fi lu kenn jàngul kon waxi tappale la ak kaccoor boo nekkee mag nag ci réew dañ doon seen du ko doon mag mu baax waaye boo doonee mag mu bon loolu musiba la waxuma la def lu bon waaye di ko yoonalal ndaw ñi di leen ko ñimeeloo lii du bàkkaar gars yi xamuñu dara ustaas yi seen jàng demul fenn ñoom ñetti jër la jàng si la beer lañ ñëw doo ragal yàlla doo ragal yàlla loo xam sa bàyyi waxu te moo la dàq jàng sa maam waxu te moo la dàq jàng kilifa yu baax yépp nekk borom yi xam-xam ci réew mi la fi nekkoon sa masuk wajur waxuñu loolu yow nga ñëw taxaw jamono bu ko wax dañ laa yónni waaye ñu la yónni am ndam ci loolu ndax kat nañ leen ci kon mak buy njaaloo am soxna bàyyi ko fi di dem di wuti feneen am yàpp wu sell wu baax wu lew wu dagan bàyyi ko fi dem fekk medd mu nëpp medd mbaam xuux nga di jëfandiku kooku yàlla bañ na ko yàlla da ko bañ waxuma la xam nga bàkkaar da ngay tuub ñu yàlla bañ loolu xam nga beneen affaire la yéen bi ni kooku yàlla da koo bañ yàlla nañ ci yàlla Yal nañ ko yàlla soril ku koy bëgg layal suñu réew mi yàlla na yàlla téye la ba doonoo ko tal ndax mbonkat ku ko bëgg a tasaare ci am réew yow yow musiba nga ak ku mën a doon sénégal dañu am natu rek xàmmewuñu yàlla sama borom dana fekk ku baax ci kéemtaanam mu génne ci bu bon yonent yàlla nuux yonent yàlla la woon doomam sawaral dem waaye ñun Sénégal dañu am nattu boo ñëwee rek nit nangam la sant nangam ñun yow acca mooy waaja fekk nit dana bokk fu baax ba noppi doon ku bon yàlla nañu ci yàlla musal ki ci topp mooy ki nay ba noppi di rëy rëylu moom li mu am du ko joxe lii moo doxoon wax ji ñëw ki nay di rëy rëylu du joxe kenn du joxe ji wetam ñetteel bi mooy ki ñàkk amul dara waaye nag moom it foo ko fekk mi ngi puukarewu di woote yoo xam ne amu ko ñooñu yàlla sama borom bugg leen mbokk yi seytaane mooy digg nit ñàkk digee ñàkk ci pexe seytaane la bokk nangam boo ko defee doo am ku nekk ci ak mbaax nekk ci lu baax di góor góorlu di ut ngërëmal yàlla di fàggu di ñàkk insha allah da nga am wërsëg da nga am wërsëg wu teey yàlla la koy jox mu ne seytaane moo leen dig ñàkk alseytaanu yaidukum alfaqra wa yamurukum bilfaxsha waaye yàlla moom yaidukum magfiratan minhu wa fadla yàlla li mu leen dig mooy jéggal ak nga neen kon ku yaakaar digal yàlla googu doo déglu diggee seytaane yonent bi aleyhi salaam wax ni nit kii li koy fekk ci bàmmeelam mooy li mu jëf ci jëf yu baax mu jiitu ko xam-xam boo am jàngale ko da nga am xam-xam jàngale ko wala doom ju baax joo yar ci lislaam mu baax nga bàyyi ko fi mu di la ñaanal wala kaamil boo jënd téere joxe ko ñu di ci jàng aw mushafan warasahu wala néegub yàlla nga tabax ko baa nga bokk ca la ko tabax wala kër goo xam ni doxandéem yi dañ fay dalal nga xam ni kon lépp loo tabax luy jëriñ doomu aadama rek danga fekk yiw wa tey Sénégal soxla nañ fi ay hôpitaux soxla nañ fi ay dispensaires ci yenn gox yi ay centre de santé bul jàpp mukk ni tabax jàkk moo gën a foor tabax centre de santé bu ko jàpp de fekk gox bu ñàkk amuñu fu ñu fajoo tabaxal leen fu ñu fajoo moo gën tabax fa jàkk yonent bi dafa xool kaaba gi ne ko jarub jullit moo gën a foor fa yàlla ci yow ban néeg boo gën a rëy kaaba gi waaye sàmmal jullit deram sàmmal ko ñàkkam dimbali ko ci mu dund faju faj ay aajoom loola moo gën a foor tabax jàkk donte nag xadis bi siiw te ñoom ñépp moom lañ xam mooy ku tabaxal yàlla kër ci àdduna mu tabaxal la kër ci àllaaxira dëgg la lu wér la waaye Sénégal dëgg-dëgg tuumurankewul ay jàkk loolu ci gox yu néew néew ci suba rek maa ngi romb ñaari jàkk yoo xam ne yéemu sax jàkka jee ngi fii boo jegee li jàkka jee ngi fii xam nga di ki tabax jàkka ji mënoon na ko bañ a tabax mënoon na ko tabaxee ab ab hôpital mbaa mu tabaxee ko fu nit ñi jàngee xam-xam waaye léeg-léeg ah yittee nit ñi mooy dem ci liñ gis ci biti nii rek lañuy jàpp waaye am na fu nit di toll ci tumuranke am na fu ay gox di toll ci tumuranke tabaxal leen hôpital gasal leen ay teen defal leen ay forage dimbali la ñu liggéey moo fa gënal yàlla tabaxal leen jàkk kon baax garanti la gis yalla yalla dool ñu tawfiq ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله